إذا الدين لم يكن كن فلا كانت دنيا

في الملك بئس الدين لم يكمل فلا كانت دنيا بئس الدين لم يكمل فلا كانت دنيا بئس الدين لم يكمل فلا كانت دنيا بئس الدين لم يكمل فلا كانت دنيا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل amiin amiin wax leen ko ku ko wax yal na nga gudd fan fekk man ay yooni yooni yooni yoon amiin mbir mu rée ngi ci biir baat boobu bismil auzu billahi mina sheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim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 ولا تعمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما yàlla nañ ko fi yàgg def ci diiwaan yépp bépp bépp bépp jullit bu toog ñaan ko màggal bi yi yàlla nañ ko defaat ay at yu bare bare bare bare bare ñun ñi ñëpp ñu ñëw bu ëllëgee bu dee ne jàmm bu ñuy ñëw kenn ku ne yàlla na mën a indiwaat fukk ñaar fukk yu bees yoo xam ne yii lii da koo neex rek muy ñëw yàlla nañu yàlla defal lool alhamdulilahi rabbil alamin yàlla baal ko na bi nga xam ne yàlla da koy def mu fekk ndeyam ak bàyyam ñu ne ñoom ba waral teg gàcce ci ñoom te réewu ko ba bakkan bakkan mu torop la boo xam ne amul yéen comme sawar ak bakkan bi nga xam ne dafa toog jullit wér ba mu dal ko mu dégg ñu ni Muhammad rasulullah te néewul sallallahu alayhi wa sallam moo tax man de kii ma sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëfati léegi ngay jëfee moom ñu yaakaar naa du doy waaye ñu def ko doylu rek doylu doylu ci dëkk dëkk jur na moom jafe la daal ni ko lu amul amul ba làmb yu mel nii détails yu ba am wàll bu nekk tax na dañuy gàttal jéem a woyofal rek parce que ku bëgg a entraîné nit yàlla ñii détails yu ñu kenn mu dolli jàmm ak salaam yéen ñëpp ku ci nekk dara ñu bu fi indi ren yàlla na am yóbbu andi bu déwénee bu bu gën kawe boobu ànd ak yéegoon am am njëriñ parce que alquran bu karim bal naa àq ñëpp baal di ñaan yàlla di mu baalaat na ñun ñëpp man daal toog kenn dara merewu ma kenn dara kenn kenn kenn mer daanaka boo ko seetloo rek ku ko moytu ndax soxor lay jëri te ay soxor ku fal ku doon sang yàlla du ko soxor kenn ko kenn waaw nag ku nekk baax na xam ne waaye loolu bu ko defee loolu ñax yi dee ci leen di soxlaa di leen di sax ñax yi dee quoi kon man jàng ku nekk baax na xam ne ay naaj man ma jàng ne baax na ay tuur tuur si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

kon boo demee ñu ñu ko nañ ko fexe day kontaan day wax dëgg yàlla ñii nag wax dëgg yàlla mooy ñu mel ni yéen ñi ñu lan ñëwaat da ngeen ñëwaat ñu doy mooy ci yéen am la la yàlla mën a jàpp ba soxla soxla xaalis ñu sa bañ a yàlla